shahra rabiica al awwali shahran mubaaraka wa arsala rasuulahu li yuxrija annaasa min azulumaati ila annuur wa addabahu fa axsana taadiibahu wa axlaaqahu wa qaala lahu wa innaka la ala xuluqin aziim wa sallallahu wa sallam ala man qaala buistu li utammima makaarima al axlaaq wa huwa akmalul wara xalqan wa xulqan zahara wal mislu qatt lam yura walan yura fi chiyami wa ala alihi wa saxaabatihi alxiyaar wa xadimihi alqaail qadamta bi taqdimi alali ya rasulana wa xuzta alula ya nasira alxaq bilxaq mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziyaare di leen ndokkeel bis bu mag bi nga xam ne yàlla dogal na ñu fekkee waat ko gannaaw bu ñu ko ñaanee woon daaw mu may ngi ñu fekkee ko ñu ngi ko ci sant bu baax a baax di ko sant moom mi nga xam ne moo bind juróom-ñaari asamaan tànn ba ca gën a kawe dëkkee ko yeneen yi ci des yépp mu dëkkal ci mbindeefam yi tànn ci mbindeef yi doomu aadama mu gënal leen ci wax ne wala xad karram naa bani aadama doomu aadama yi mu tànn ci xeetu arab xeetu arab mu tànn ci mudar ci zëggi mudar yooyu mu tànn ci quraysh quraysh mu tànn ci banni hashim alayhi salaatu wasalaam ba mu waxee xadis ba yegg foofu mu ne man nag la tànn ci bani hashim kon fa ana xiyaarun min xiyaarin ila xiyaar ba mu tànnee ba noppi ñamu tànn tànnaat ci seen biir man la ca génn ma yëkkati sama loxo gën leen ñoom ñëpp mu wax ne ku bëgg arab maa tax ku leen bañ maa tax sunu borom tabaraka wa taala alayhi salaatu wasalaam nee na euh, noonu la doxalee waaye alayhi salaatu wasalaam tegaat ci ne sunu borom moo ma tànnal ay àndandoor inna allaha axtaara ashaabi ala jamii al alamina moo xool mbindeef yépp mu seggal ma ci ay àndandoor mu gën ci mbindeef yi waaye ba ma tànnalee ay saxaaba mu tànn ci ñeent ñu gën muy Aboubacar Omar Ousmane Ali gannaaw loolu sama xarnu bi mu ko defee mu gën bi ma génne àdduna ñi topp ci man ñoo gën ñu dul ñoom mooy xayrul quruni qarni summa alladina yalunahum summa alladina yalunahum ila axirihi ñu julli ci alayhi salaatu wasalaam moom mi nga xam ne yàlla jox na ko ay melo yu bari wax ko ci téere yu njëkk yi melal na ko ci tawraat ci bi mu ko waxee na ko yaay sama jaam di sama ndaw ma tuddee la al mutawakkil mutawakkil mooy kuy góorgóorlu te bàyyee boppam yàlla ñu kuy te bàyyee boppam yàlla mu ne ko yow lay sa bi fas ne koo faz waaye ne koo xaliis waaye nekkoo koo saxaab fil aswaaq waaye itam doo def ku la faye ku la lebal njëkk nga faye ko jekkaat yi meloo noonu mu melal ko ci injiil baat yooyu ci xadis bi Aïcha nettali sunu borom tabaraka wa taala wax alayhi salaam ne ko yow de doo fas waaye doo xalis waaye doo saxaab bil aswaq waaye ku la lebal lu baax lu baax nga koy fay noonu la ko melalee ci alquran ci waxam jafa bi ma rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta fazan xaliza alqalbi lan faddu min xawlika mu ne ko yërmande ju ma la defal moo tax nga baax te yaatu ba saxaaba yi man di la wër di tibb say njariñ waaye boo maneen naneen mooy fazzu ak xalis fazzu mooy ku ñaaw jikko sunu borom ne ko boo ñaawoon jikko wala ngay wax wax ju ñaaw wala ngay jëf-jëfin wu ñaaw kenn du la jege xalis mooy koo xam ne kenn mëntu wër gàmmam koo xam ne loo def ba jàpp ne tey ngay dab bànnee xam rek ndeken korog ngay gën a wuuteeg moom sunu borom ne ko yow yoroo yu jikko waaye xam ngeen ne ku tuddee suñu borom tabaaraka wa taala ku jël ci turam yi benn tuddee ko sa doom da am bàkkaar waaye sunu borom moo jël ci turam yi ñaar tuddee ko alayhi salaatu wasalaam mu ngi ko wax ca laqad jaakum bil muminina raufun rahim kon sunu borom tabaaraka wa moo mel noonu alayhi salaatu wasalaam waaye xéewal yi ko yàlla defal ci ay jikkoom moo tax ñëpp bëgg ko ndax xam ngeen ne sunu mag ñi kenn gënu leen a bëgg alayhi salaatu wasalaam dégg ngeen li suñ tuwaa wax nee na man place yi ma yàlla defal ma war cee bëgg lépp alayhi salaatu wasalaam da cee toog moo tax deseetuma fenn fu ma war a bëggee mënumaa bëgg ay doom mënumaa bëgg ay soxna mënumaa bëgg alal mënumaa bëgg ay kër mënumaa bëgg ay jarbaat ndax man fépp fu ma amoon fu ma war a bëggee alayhi salaatu wasalaam moo ko fees dell ci la waxee ne mahat mahabbatiyal muxtaara sayyidina xubbil maxaaniya wal ahliina wal walada dammi wa ahli wa awlaadi fidaun lahu abdan xadiman lahu mud kaana li sanada Sëñ Tuubaa nee na man mënumaa bëgg ay soxna mënumaa bëgg ay doom mënumaa bëgg kenn ndax alayhi salaatu wasalaam mel na ci man noo xam ne euh, li ma war a bëgg lépp moom laa ko bëgg te loolu lu wér la waaye tam gis ngeen noonu la ko mag ñëpp defee ndax Cheikh Ibrahima Niass dégg ngeen ni mu ko waxee ca jaamiul jawaami nee xaridi madixul haachimiyi wa man alit fa naadaahu bilmahmudi xayral animi walaw balaxu alfan wa zaadu fa innama usaamihimu asmaa xayri zaimi kon gis ngeen acha ibrahima is loolu la wax mi waxee teg ci ne unaa jiihi fii tayma ak keesin li andari xaraaman wa tahyaaman bi junxi bahimi Cheikh Ibrahima Niass Baye Niass nee na ah, dama bëgg alayhi salaatu wasalaam ba xam ne sama woy yëpp tagg Hachim la xam ne Hachim dafa bokk ci turi alayhi salaatu dafa bokk ci turi maami alayhi salaatu wasalaam ndax moom ñaar fukki maam yi mu waxoon ne kuy ku koy lim boo yeggee ci ñaar fukkeelu maam na nga ci yem tàmbalee ci xam ne moom Abdullahi mooy woy jërëm Abdullahi Abdul Muttalib mooy woy jërëm moo tax léeg daan na wax ne ana ibnu Abdul Muttalib ca ba mu ko doon wax ci xare ba ana ibnu Abdul Muttalib ana nabiyun la kadib Abdul Muttalib nga jël Hachim moom mooy ki Baay Ñas indi ci wayam wi daal ni mu abdu mutalib hashim abdu manaaf xosey kilaab mur kaam lu ay e xaalib fihr maalik natn kinaan ba ci adnaan nee na kuy lim ay maamam boo yeggee foofu waaye Cheikh Ibrahima Ñas sama way yëpp mooy tagg alayhi salaatu wasalaam nee na it yemuma ci loolu waaye ku am ci njaboot alayhi salaatu wasalaam laa tuddee ñu ne ah Baay xanaa su fekkee dañoo bëriwul mu ne ñoo xam walaw balaxoo alfan bu ma amoon junnee doom kenn du ci génn alayhi salaatu wasalaam lu ma jur alayhi salaatu wasalaam laa ko tuddee walaw balaxoo alfan ñu ne ka ah, loolu bari na mu ne wazaadu bu ma amoon lu junnee doom itam ñëpp alayhi salaatu wasalaam tuddee xam ngeen ne moom la Sëriñ Tuubaa def ndax boo xoolee euh, doomam yëpp sallallahu alayhi wa tuddee koo ci jël rek turam moo lay jël ndax moom gis ngeen moom lañ ko tuddee te itam wax na ne lu ma am alayhi salaatu wasalaam moo waaye bàyyi dégg ngeen ku ni ko waxee walaw balaxoo alfan wazaadu fa innama a asmaa xayri zaimi mu ne unaajihi fu ma nekk damay wax ak alayhi salaatu salaam maa ngi nii unaajihi fay tay maa keesin maa ngi bàyyi ko Cees jëm Ndar waaye bëgg gi ma bëgg alayhi salaatu wasalaam moo tax fu ma tool dama koy way bu ma teewee fa ma dëkk dama koy way bu may tukki dama koy way kon gis ngeen suñu mag ñi kenn gënu leen bëgg alayhi salaatu wasalaam moo tax ñun nii ñu leen royee ci bëgg alayhi salaatu wasalaam bu ñu ko kenn dindil ndax xam ngeen ne euh, su doon ay njariñ yi ci am waaye ñu xam ne alayhi salaatu wasalaam ci la gënee jamono ba noppi doon màggal bis bi doy na sëkk ci ñu war koo màggal rawat na mu daan ko màggale boppam te da ngeen li ci Sëriñ Tuubaa lim ci fa man yuazim mawlida nabiyina babil huda falaa yuhaasabu ghadan fahtariman wa azimi xam ngeen ne xisaab mooy mooy euh, ni ñu koy faral di gisee ci jamono léegi mooy audition audit mooy dañ lay laaj yow li nga am lépp foo ko jëlee xam nga loolu mënee su ko wax benn at dong boo ko lëggéeyoon ñu laaj la li nga am lépp fan ak fan ko jëlee doo ko mën a wax léegi nag boo demoon yomal xiyam ñu ne la yow sa dund gi lépp li nga ci am fan ko jëlee kaay wax ko xam ngeen loolu lu jafe lay doon waaye Sëriñ Tuubaa nee na képp kuy màggal euh, gàmm boo demee suñu borom dina la faxasal audition boobu da ngay ñëw rek jàll te loolu euh, am na ñetti jëmm yoo xam ne dañoo dem yomal xiyam ba ñëwee ñu taxaw ca régler ba ñu régler li ñëpp ñu dem ñoom ñu des so ñu ne leen waaw yéen xanaa bokk nañ ci xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ne aha kañ mu ne waaw yéen xanaa daawu leen gàmm ñu ne ah déedéet ñun nag moom wax dëgg yàlla mosu leen gàmm ah waaw yéen bokk leen ci daayira yi ñu gàmmoo ñu ne déedéet mosu leen dimbale kuy gàmm ñu ne déedéet mu yàgg benn waaye ne ah non maa ngi fàttaliku am na benn bis ma demoon ci sama benn kërwaay fekk seen koñ am na gàmm gu am mu ne ma kañ dem ma ne ko non man moom ay fanaan ci gàmm moom dugguma ci damay nelaw ba mu yàgg ma ne ko nañ dem may bis boobu daal laa ma sax fàttali ko fu ma demee gàmm te sax duutoon sama teewi bakkan ñu ne kaa ah, yow de xanaa koo dugal aljana la ñuy wax waaye yow moom ilal jana demal aljana nga xam ne ñëw gi mu taxaw ci baasub gàmm ci la ko amee keneen ko ñu ne ko yow xanaa yow mosoo gàmm mu ne déedéet ah mosoo participer ci gàmm mosuñ laa woo téléphone ne la daayira bi kat nangami million la soxla pour gàmm def sa ñaq mu ne ah non man wax dëgg yàlla mosuma dimbali ki gàmm mu ne ba mu yàgg mu ne ah kañ am na benn bis ma demoon ci seenas ndaw su ma doon ñu ci waxee ngeen baal ma sama gel ba ma ñëwee laajte seen kër ñu ne ma ah moom kat daa dem ca gàmm ga mu ne ma meer lool fëxër fëxër ñëw fekk ko ba ma ñëwee dugg si tànt bi na ko ee eh kaa yow mu daal di génn boobu daal laa mos a fàttali ko fa ma duggee ci tànt bi gàmm ñu ne ko comme mas ngaa dugg gu dugg ci tànt bu ñu gàmmoo yow xanaa koo yóbbu aljana la ñuy wax waaye yow moom sax demal aljana leer na kaay dem aljana keneen ki ñëw ñu ne ko ah waa yow xanaa mosoo gàmm mu ah yow mosoo dimbale kuy gàmm mu ne déedéet ah waaw loo mos a defal gàmm nag mu ne maa ngi ko benn bis nit ñi dem ca gàmm ya ma sant Dieng bàyyi ba nit ñi dem ma dox ndànk dugg ci kër yi ba ma ñëwee faxas téléphone yaag bagage yaag yëpp ëmb ba mu diis na may génnoonoo rek ñu bett ma fa ma samp sama xel la ma ca man a yóbbu ma jël ko moo ñëwee raaxaloo ci mbooloo mi dugg ci baas bi foofu laa laqatu ñu ne ah comme yow mas ngaa dugg ci tànt ba ñu gàmmoo xanaa koo yóbbu aljana waaye yow lenn loo ca laal moo tax bi ne bu ñu la wooyee daayira ne la ah jëwriñ yow sa sas yu nangam nga naan ah non bu leen ma fonto man ba ma ñëw Ndakaaru daayira taxut ak yooyu fekk ñàkk xam la waaye ku xamoon lenn du ci nekk waxuma la di jël di ca def waaye weer wu jot dangay nga jéem a def as sa lëf ngir def ko ci gàmm gi kon loolu ñu bàyyi ko baax a baax njëriñal gàmm amul fu mu yem Sëriñ Tuubaa jàngal nañu ko waaye mbokk yi tey tam bu ñu bëgg a waxtaanee bu mooy jikko yi alayhi salaatu wasalaam ak nu ñuy def ba jikkoo ko ndax xam ngeen ne alayhi salaatu wasalaam moom la yàlla yónni woon ngir mu nekk solution adduna ndax euh, fi mu li xew si jamono mooy dañuy gëm yàlla waaye wóolu goo des wóolu gi moo des te loolu bu ñu ko xoolee ci euh, pàcc yu bari ci sunu dund lañ koy gis ndax fi mu ne nii buñ ne gëm nañ yàlla daanaka ci baat bi la yem ndax fi bu nit ganee jamono ku ñuy woo. imaam la ñu woo mu ñëw tudd suñu ko bu ma tee dal jàng nu ñuy def dañ fanaan naan ñukk wan fa gannaaw yàlla yóbbu ca école ba kon gëm nañ yàlla waaye tubaab bi la ñu wóolu tey ji bu nit faatoo nu ñuy def dañuy jël andi si jàkka ji jullee defar ba mu jekk ñu dem denc bu ñu dellusee bu ñu waree miraas nu ñuy def tribunal la ñuy dem kon gëm nañ yàlla waaye wóoluñ ba tey tamit bu ñu takk sëy nu ñuy def dañuy dem ca jàkka ja jabatu fa wax la ñuy wax ba ne ay ci mën ngeen bu sëy ba naqaree nu ñuy def tribunal lañ koy tasee ji kon gëm nañ yàlla waaye wóolu gi moo des moo tax suñu lépp dañ ko war a dañ ko war a jox yàlla te yooyu yëpp ñuy wuti ca tribunal ak ci tubaab ya ci lislaam la gën a gaawee ndax tey ji miraas na ko yàlla bu buñ ko d'accordoon te xam ne alal li miraas moom du alal ba tey tamit euh, ni lislaam tëralee problème bu amee ci sëy ni ñu ko war a réglé ku ko topp biir bu yomb la dina dina sotti te dara du met ndax kilifa bu jóg solo saw daal la ngir defar bu dee defar képp la tax a jóg in yurida islaahan rek yoo bay yuwaffiqillaahu baynahuma loo dox yàlla sottal ndax sotti nekkul ci loxol nit waaye ci loxol borom bi la nekk kon nag euh, jikko yooyu lañu war a jëlee ci lislaam te bàyyi lu xew rek ñu seeti tubaab bi wan gannaaw lislaam kon nag biñ danañ waxtaan ci amaanatuhu mooy sunu borom tabaaraka ko taala ni mu xéewalee alayhi salaatu wasalaam jikko yooyu ñuy wax mu nekk ku wóor nga xam ne euh, loolu danañ ci ñëw ci kanam ba day dem am bu ñu wax xulqu tasaamox muy jéggale wala jéllale wala baale ak lu baat bi mën a tekk rek alayhi salaatu wasalaam loolu bokkoon na ci ay jikkoom bokkoon na ci ay jikkoom muy matal kóllëre ku mënoon a matal kóllëre moom alayhi salaatu wasalaam bokkoon na ci ay jikkoom ba tey ku maandu la woon moom alayhi salaatu wasalaam bi ñu wax ne moom moo doon juge bu rëy bi waaw doon def justice bañ di def justice comme ni suñu gars yi def nga xam ne dañuy justice waaye ñoom duñu justice tabarakallahu ba tey tamit wax ci saxaaba yi ni ñu roye woon ci alayhi salaatu wasalaam ba tax ñu gën ñu gën ñee neex jamono gën ñee neexi kër gën ñee neex lépp tabaarakallaahu waaye itam ñu fàttali ne nit ñi léegi seen yitte jub gën a mag mooy fexe ba nit ñi dugg ci lislaam ji nit ñi dugg ci lislaam bi waaye la gënoon a ëpp solo gënoon nekk farata mooy fexe ba lislaam ji dugg ci nit ñi fexe ba ku ne jullit laa ñu def ci yow jikkoy lislaam moo doon ëpp solo mbooloo mi bari waaye euh, li ñuy wax quantité quantité qualité ko gën te itam l'islam toll na foo xam ne fu ne bu ñuy xool ci nattukaay yi jamono indi 23 pour cent ci ñu dëkkee ci alam bi muy monde bi ay jullit lañu xam ne boo ko doon xool day nekk 1 virgule 6 million 200 pour cent 1 virgule 6 million 200 ñooy ay jullit nga xam ne l'islam mooy ñaareelu diine bi ëpp doole ci l'islam gannaaw almasiix ya almasiix yi mooy diine bi ñu wax ne moo ëpp doole l'islam mooy deuxième bi stop beneen ndax almasiix ya boo xoolee daanaka ci diraasa yi américains yi def euh, mu ngi toll ci deux millions deux milliards deux cent millions ci lay toll nga xam ne mooy almasiix yu yi nga xam ne boo xoolee day nekk deux pour cent musulmans yi nekk 23 pour cent kon almasiix yi ñëw ëpp waaye l'islam léegi toll na ci koo xam ne ak ay membres su la nee jikko ji mati na dëgg problème du am. ndax quantité euh, bu toll noonu ndax euh, ni ko euh, waxee woon ni ko aaya bi waxee al ana xafafa allahu ankum wa alima anna fiikum doofa fa in takum minkum mi a sabira yaxalibu mi atayni kon tey ji su doon ne monde bi day ñetti xaaj benn xaaj bi bu nekkee diine lislaam war na noo mën a muur ji koy ña des te loolu xam nañ ko ba tey tamit li ñu gën a yittewoo ci jamono léegi nit ñëpp di ko puukarewoo da ngay gis ñaan ñun ah, gouvernement bi naan ñun de tabax nañ nangami jumaa wala tabax nañ nangami jàkka wala nangam te fekk la ca ëppoon solo mooy fexe ba ah, loola ñuy tabax wala jumaa yooyu ñu tax wala yooyu fexe ba nit ña fay ñëw jikko yi mel nañ bëgg te loolu mën naa nekk ndax ñi nga xam ne seen jikko mate na ko seen jàng matee ko bu ñu leen dooleeloon ba nit ñi di leen seen fu ñu toll comme nit ñi forcé yenn artistes yi wala yenn stars yi Nukraan yaakaar naa ci lay ëpp doole ndax xam ngeen ne kaamil yi ñuy jàng bari na jàkka yi bari na jumaa yi bari na waaye daanaka boo xooloon jikko yi ñu waroon a am wala bu ñu waxtaanee jikko alayhi salaatu wasalaam euh, bu dee fukk kenn est-ce que dina a natt boppam ne man de ñaar yi matal naa ko bu ñu ne woon jullit mooy koo xam ne du wax lu dëgg tey ji boo ne woon euh, ku mus sa wax lu dëgg yëkkati sa loxo yaakaar naa ne buñ dee téeméer doo ci am fukk te loolu alayhi salaatu wasalaam ba ko waa ji laajee ba mu yegg ci ne est-ce que jullit dina wax lu dëgg dafa jóg taxaw ne ko mukk lu dëgg moom jullit du ko wax jullit mën naa njaaloo ñu xam ne dafa juum jullit mën naa woor ñu xam ne dafa juum waaye wax lu dëgg moom jullit du ko def te fu ne ne boo nattoon téeméer jullit boo nekk ku mës ta wax lu dëgg na yëkkati sa loxo bu fekkee ragal nañ yàlla dana bëri ñoo xam ne ñu yëkkati seen loxo te jukki jooju la am sar sama waxoon ne euh, ab jullit du ko def waaye ñu xam ne royuwaay yu ñu mën a roy ba tax ni ñu bëgg a mel ñu mel ko loolu mooy yonent yi ndax xam ngeen na yonent yi yàlla wu leen rek ngir ñu nekk fi di baagante di dox ko ñëw waaye yàlla def leen yónni ngir ñu roy leen te itam mu def leen ay nit yoo xam ne dañuy mel ni ñu xam seen i askan ñuy dëkk barab sàngam di xëyee barab sàngam di dem di liggéey barab sàngam di waxtaan ak ñun ndax loolu lépp yàlla da leen def ndax dañuy ne yonent ni mu gën a wàccee gën a mat wala yi ni mu gën a yéegee gën a mat kon euh, yonent yi yàlla daf leen roy daf leen def ay royuwaay ñuy lekk ci ceebu jën yi di lekk ci sump kànja di lekk ci yëpp di waxtaan ak ñun di sonn di nelaw ndax yàlla def leen a def ñu noonu ndax bu fekkoon dañoo mel lu mel ni yonent yàlla Isa nga xam ne euh, dafa màcc ci wàllu malaaka xam ne yàlla daf ba mu koy bind dafa yónni malaaka mi rek mu ñëw wàll ko ci euh, wóor juróomu jigéen mu judd nga xam ne ba mu juddoo dafa do yor melokaan woo xam ne nit ñi mënuñ ko supporter nga xam ne doole ji ëpp na moo tax mënuñ ko waaye yónni sans salaam ak ñi ci des ñëpp yàlla def leen dañu nekk

waaw maire bay jaay caaf fee ca koñ ba mooy mooy woy juróom ñu man koo rey ci lépp loolu tax alayhi salaatu wasalaam mu gën a mat mbindeef yëpp yàlla suñu tabaaraka a la waxaat ne ulaa'ika alladina hadahumullah fa ko hudahum muqtadi ñooñu laa def ñu nekk ay yonentu nekk ay royukaay bëgg ngeen roy ci kon nag na ngeen ci roy ci la waxaat ne laqad la lakum fi rasulillahi uswatun hasana waaye ni ñu war a royee yonent yi alayhimu salaatu wasalaam mu ngi mel ni tey ji sa imam boo duggoon si jàkk ji fekk imam Omar Fall di jiite wala imam Malick Fall nga ñëw ne da ngay julli subaar mu kàbbaar nga kàbbaar mu rokoo nga rokoo ba noppi nga bàyyi ko fa di def suñu fi bopp mu sërmal nga lànk ba ñu sërmal dañuy xam ne yow jote woo dara imaam bi ni nga war a royee imaam bi bu kàbbaaree ba baa mu sërmal noonu la ñu war a royee yéen kii ci lépp lu war a jëf fi ne tey ji bu ñuy lekk sax waroon nañoo xool ni yonent bi daan lekkee ñu jéem ko lekkee bu ñuy sol daal dañ ko war a xool bu ñuy sol yére dañ koy war a xool waaw ba booy lekk sax wala ngay lekk nangam boo sotul mën nga koo laajte bu ñu ne nii laa lekk ngay lekkee waaye bu dee da ngaa sant ñam da ngay yàkkamti moom boo tiimee rek tabarakallah kon loolu mooy li nga xam ne sunu borom tabaraka wa taala moom la ñuy sant saxaaba yi nag li taxoon ñu raw ñu mooy dañoo royoon yonent nu alayhi salaatu sa ci lépp lépp loo xam ne ñu ngi ko doon def te xamut ni ñu ko alayhi salaatu wasalaam doon defee dañuy dem laaj ji ko ba xam ko euh, daal di koy jëf ba tey tamit loolu gis ngeen sunu mag ñi ni ñu ci rawee ba tey ci ay fonk kilifa yu demee noonu moo tax euh, alayhi moo man ñëpp ci ay jikkoom yàlla nañu nañ ko roy xam ngeen ne euh, dana yell lool jotaay yu mel ni ñi di ci tudd ay jikko ndax dara ëpp solo ci ñett ndax ndaje yi da ngay gis fii léeg-léeg nit ñëw fi ba ñibbi te benn yokkute du nekk ci moom dana ñëw dem naa ca gàmm ga te gàmm duut ne añi neex naag boisson yu bari na mbooloo ma bari naag yooyu déedéet lay njariñ la mooy da ngay ñëw boo ñëwee lu ëpp solo mooy fexe loo yokkee sa diine soo demee jàpp ci benn jukko walla ñaar ba baa di di jot nga fexe mu nekk ci moom boo ko defee ay at balaa yàgg rek nga baax waaye da nga gis koo xam ne bu bàyyeekoo ci base bi buñ ko ne tem buñ doon waxtaanee du la ko mën a wax te loolu jurul njariñ waaye xam ngeen ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam toogul rek ba yàlla yónni ko mu soog a wane ay jukkoom yi rafet déedéet ndax alayhi salaam laataa ñu koy yónni ci la feeñoon ndax loolu dañuy nettali ci Khadija hadis ba mu waxoon ci alayhi salaam ba mu nekkee ci xaarul Hira te jibril feeñu ko fa mu daw ñëw ba mu ñëwee jaaxle lool ndeysaan fekk fa jigéen ju mat jigéen ba mu ñëwee yuuxu ko tàccu ko wax ko ne ko yaa ko tey ah doo tër si heure nii rek ngay def waaye ba mu ñëwee mu dalal ko mat mat ko sëkk ne ko yow de xam nga ne doo jommi ndax li war a jom daa tamit jinne yaa ko man ndax moos jikko yi ma xam ci yow doo jommi de yow da ngaa ñebeeg ñeboot te da ngay teral gan waaw te yow tabaarakallaahu euh, ku mën a rafetal nga jëm ci nit ñi la bari bay ahsin ila nnaasi tastaabat qulubuhum fa taala mastaabada al insaanu ihsaanu ne deel rafetal jëmale ci nit ñi ndax nit ñi kuy rafetal jëmale ci ñoom bu la neexee ak bu la naqaree ñu soppeeku say jàmm nit ñi kuy rafetal ci ñoom rek ñu soppeeku say jàmm ndax koo jox cër mu jox la cër waaye koo xeeb mu yab la kon loolu la ko wax nga xam ne alayhi salaam ci loolu la nekkoon moo tax ñim jamonowante ñëpp dañ koo nangaloon léeg-léeg nga gis sax koo xam ne ndeysaan dafa ñëw Euh, ngir lor ko wala ñëw ngir ñaawal ko wala nangam waaye fa mi mujjee mooy da koy mujj nangul waaye alayhi salaatu wasalaam moo gën a rafet ñëpp jikko ndax euh, euh, dégg ngeen ca xilaas zahab ni mu ko waxee min kulli wasfin xamidin xaaza afaala taf diilin rajaul baraaya yow musdahami ala di dégg noonu la ko xilaas waxee si jël xaaj Malick si nee na bépp jikko ñu naan jikko ji aka nangam alayhi salaatu moo ca man jikko joo wax rek neen na alayhi salaatu salaam moo ca man ñëpp koo cay teg soog ko cay teg kon nga xam ne alayhi salaatu salaam jikko yi nga xam ne mooy jikko yu baax yëpp moo ci man ñëpp min kulli wasfin hamidin xaaza afala taf diilin rajaaul yow ma musdahami waaye dégg ngeen noonu la suñu tubaab waxee alayhi salaatu wasalaam moo gën a mat ñëpp jikko bu doon ne course la bu ñu organisé ni ñëpp doon di seetaan fas yi war a kon war a war a war a daw course bi alayhi dana dem ba yegg ñu ci des jàmbaar yi soog a yegg daal loolu daa bëgg a wane ne moo leen ci raw fuuf rek nga xam ne dana dem ba yegg ca course ba jàmbaari soog a départ wa huwa akmalul wara xalqan wa xulqan zahara wal mislu qat lam yura walan yura fii chemi kon alayhi moo mën ñëpp waaye itam xam ngeen ne euh, melokaanam bu rafet woo tudd al amin bokk na ci li njëkk a feeñ ci moom moo taxoon aw nitam ba muy nekk tu tànk lañ ko tàmbale tuddee muhammadul amin mooy ku wóor ki nga xam ne léegi jikko jooju bokk na ci li gën a raar ndax moo tax léeg-léeg da ngay gis bu ñu gisee kenn nit ku wóor sax nit ñi dañ jàpp ne kii moom dafa waaye di wala dafa euh, nangam ndax dañuy gis sax boo gisee koo xam ne ku wóor la bu la nit lebalee bagage nga jéem a fay bu nawet jotee nga toll ci diggante ñi lebal la boo jekkoo rek ñëw fa ñaan ah kii de xam ngeen ne doo am dara ah yow kii la lebal yaa ngi soog am looy dem di fay te boo ñu la lebalee li ñuy wax ne bor ku nar a fay la la sonal nit ñi loolu bokk na ci gën a manqué boo lebee bor moom dañuy jàpp ne sa alal tey ji nit ñi alal jën gën a mën a lekk mooy alal di jàmbur waaw balaa ngaa gis kuy baatare wala kuy yàq rek nga xam ne am na ruq bi mu jaar waaye alayhi salaatu wasalaam ak wóoram moo tax waa Màkka li ñu bañ lépp ak liñ ñu xeex lépp lu ñu am te bëgg mu ñoŋe wala ñu bëgg ñu dencal leen ko ci alayhi salaatu wasalaam lañ koy indi loolu euh, dina feeñ ci bi mu doon dem ci gàddaay gi ndax xam ngeen ne moom ak dëggoom ak wóoram ba tey tamit képp ku am secret boo bëgg a wax da ngay ñëw alayhi salaatu salaam nga wax ko ko ko ko mu xelal la ci nga dem jëflante teewul nag loolu lépp ñu ngi koy bañ ñu ngi koy xeex ñu ngi koy nangam te la ko laaloon mooy dañ koo añaanee ndax xeewal gu rëy gi ko yàlla defal waaye itam alayhi salaatu salaam li mu jàngale comme jikkoom yi loolu la wax ne ab jul pire mooy koo xam ne day mel nii mu wax ci wax ne alaa uxbirukum bil mu'min man aminahu nnaasu ala amwalihim wa anfusihim wal muslimu man salima al muslimuna min yadihi wa lisaanihi wal mujaahidu man jaahad nafsahu fi taatillah wal muhaajiru man hajara al xataaya wa dunub musnadu ahmad nga xam ne aleyhi salaatu salaam na ah, ku ab julit pire mooy koo xam ne nit ñi dañ ko wóolu ci seen alal wóolu ko ci seen bakkan te loolu bëreetul ne ni ah, bëri na fi tey jii boo amoon ab junni dong bëgg koo dénkaane da nga ba sonn te doo gis koo wóolu ndax duut ne Euh, da ngaa ñàkk a wóolu nit ñi waaye nit ñi wóorutul ndax tey ji boo demoon jox ko Ousmane Dieng boo danaan la boo ko soxlaa danga nga ma koy teel a wax yow xaalisab jàmbur mu ngi dénk la loo ci am soxla man boo soxlaa ma ko wax tey ji bu ma jëloon ab junne dénk ma ko soxlaa juróomi fan dama ñëw nag ah, sama junne bi kat balaa yàgg danaa ko soxla te nag da ko war na teg ci barab bu ñëwoon digg guddi ne la sama junne nga ne ko mi ngi nii waaye tey ñàkk a gi tax na balaa ngaa dénk da nga seet ba sonn ka ngay dénk it boo soxlaa da nga teel a wax ndax fekk na moom ba nga koy jox rek ci la ko sànq la <laughs> euh, pël ba defoon waa ji ñëw ne ko ah man de dama am nagu may dénkaane mu ne ko ah waaye yow mii de tuwaar kàlla baax nga ngeen baal ma la damay jàngal rek euh, ba mu yàgg mu ne ko ah man daal damaa a far bàyyi dénkaan bi mu ne ko bàyyi mu ne ko am déedéet <laughs> yow wax nga ma ko ba noppi kay doo ma ko dénk rek nga xam ne tey ji moom ñaam alalam di ko dénk yow mu dénk laa mu bañ laa dénk ñoo war a yëpp waaye tey ji comme kooku bu ko dénkoon tey bu ko soxlaa du ci jot ndax moom ba mu koy dénk fekk na moom programme na ko ba noppi am leen lu ca war a def nga xam ne loolu mooy li siiw jamono waaye itam yéen sansam nee na ab koo xam ne nit ñi mucc nañ ci làmmañam mucc nañ ci ay loxoom euh, buñ muccee ci loxo yi ci jamono ji it làmmañ yi ma mënu cee mucc ndax tey ji euh, balaa waxtaan a neex pire dañ cee dugal lu ci bokkul dañoo indi kenn teg si diggante ba euh, li alayhi salaam waxoon ne dëmm soo amee mooy ab jowkat te xam naa fi mu moom toirkal ngeen baal ma yi bëri na ndax waxtaan wu neex dañ cee dugal nit waxtaan wu neex rek dañoo teg ah waaye yow gis dégg nga diw lam defa diw de loolu mënu ko ñàkk dal nga xam ne ca la ñuy nekk di ca ngawti ngawtee ba seen jóg jot waaye aleyhi salaatu salaam nee nag ku kuy jihaad dëgg mooy koo xam ne day xeexe ba kanam comme ni ko Matar Seck waxee fexe ba teg ko ci yoon di jaamu yàlla waaye koo xam ne da ngaa bëgg gàddaay pire jëru ngay bàyyi ci sa dëkk wala ngay bàyyi ko barab sàngam waaye bàyyil yu ñaaw yi te bàyyi bàkkaar rek yëgal na yaa ngi ci gàddaay gi moo tax gàddaay du jeex jihaad du jeex ab jullit moom lañu ñu war a euh, noonu la war a mel waaye xam comme xisa yi ñu neex li ci alayhi salaatu salaam moo xam nga dégg ko ci conférence wala nga dégg ko ci rajo wala nga dégg kenn wax ko du rek dañ koy wax mu nekk taarix boo xam ne dañ koy nettali mu jeex wala mu nekk xissa boo xam dañ koy nettali nga ree mu jeex déedéet da ngay tiire leçon ya ca nekk xool lan mooy ndax mag ñi dañ daan def da ngay toog ba mu yàgg ñi ab maire te loolu xam naa amatul léegi ndax euh, tabaarakallaahu maire yi ay maire vide lañu waaye bu njëkk maire day toog woo ay sëtam bu jël timis ba nopp leen kaay ma léebal leen bu ñëwee léeb bu mu génne rek bu ko nit déggee te am ak yeewte dana si jëlee njëriñ loolu nag léegi amatul ndax daanaka talatuñ ko bu dee meere Ndakaar yi moom tabaarakallaahu ay kii lañu su ko defee kon loolu la alayhi salaatu wa salaam di jàngale ay xisaam noonu la mel lépp luñ ci net li am na njëriñ buñ ci mën a jël waaye ba tey xam ngeen nit buñ ne jullit la rek mooy tekki ne kuñ wóolu la war a doon waaye fi mu ne nii daanaka ñu ñàkk wóor gi ci jullit ñi la ëppee te diw jullit la rek waroon naa doy sëkk ak kóolaa nga xam ne loo ko jox heure boo ko soxlaa boo ñëwee fekk ko waaye tey ji xam ngeen ne loolu amatul te alayhi salaatu salaam am na lu mu waxoon ne jullit waru koo mel te loolu daanak moom lañ mel a mel na mu aaye noona ca lañ nekk alayhi salaatu salaam ndax ne waxoon na bu yàgg ne aayatul munaafiqi salaasa bu si njëkk ma ida haddasa kadaba wa ida waada axlafa wa ida atumina xaana buxaari ak muslim nee na ab jullit pire su wala boog aayatul munaafiqi am naa fekk buñ koy wax ñetti jikkoy tax am naa fekk ñetti jikko moo koy composé bu si njëkk mooy bu waxtaanee rax ca lu amul te xam nga ne képp koo xam ne yaa ngi wax te loolu daanaka dañoo jàpp ne sax c'est pas grave tey ji nga wax dugal ci nit wala nga woo naan si sa waaye man de diw sàngam dégg nga li ko daal nangam sàngam di waa wax lu dëgg alayhi salaatu salaam nee na képp koo xam ne am nga benn jikko ci ñetti jikko yi yëgal ne am naa fekk nga babaam yi dañ ci yow bu ñaareel mooy soo diggee wor def na ni boo waxee ba yeewal ka ngay wax kay xanaa moom lay concerné waaye yow wax moom ba nga waxee lay ba génn ca ba diggeeg moom moom kay bu soobee yàlla mu ma rek bi sàngam moom moom bu soobee yàlla nangam yow boo ca paree jàpp nga ne te tubaarkàlla commerçant yi moom aljuma lañ gën a yem boo leen yorelee bor dañ naan si mooy mu ñël ba aljuma rek moom foog ne aljuma du ñëw kon tey fay ji wax loo xam ne defoo ko alayhi salaatu wasalaam ne képp ku ko def yëgal ne am nga benn jikko ci naafeq beneen bi stop mooy wa ida tumina xaana buñ la nit wóoloo nga wor te tey ji bëri na ñoo xam ne da nga wax ne diwa ma bett ah, diw dee ni ma bettee alayhi salaam ne ni képp kuñ ko wax rek yëgal ne ab naafeq na képp kuñ ne diw da na ko wax ci suñ ko déplacé beneen na ko yow sa waaye da maa bett mu ne ko waaw yaa ma bett ma bett la ma ne ko ah kon de ay bettante la tabaarakallah dégg ngeen ba tey alayhi salaam limaat na ñeent ne arbaa man ki na fii kaana munaafiqan xaalisan ñeent ngi ne yoo xam ne ku yor yëpp yëgal ne am naafiq bu mat sëkk nga ku ca am benn yëgal ne am nga benn yu naafiq mooy koo xam ne buñ ko wóoloo mu war ak koo xam ne ndax alei sala dafa wax ndax dafa bëggoon jullit ñi moytu ko ndax dafa a yàq société ndax li xew léegi insécurité bi li ko gën a waral tey ji bu ma ñëwoon Touba Fall di laajte ana kër imam duñ ma wóoloo wax ne fee dañ ma ah laajal fee ba xam te ka ka ci dëkk bi lay dëkk waaye fi ne insécurité moo mat sëkk ma nga xam ne daanaka kenn wóolutu kenn bi nga laajee sax jàpp nga ne ah kii da lu jubul lay def wala nangam wala nga ne ah kii est ce moo tax euh, loolu dafa bokk ci alayhi salaatu wasalaam li mu doon mot doon moytuloo xeetam yi ba tax ay ay xadis yu dul jeex la ci def waaye xam ngeen ne euh, euh, benn waaye dafa ñëw wala bokk alayhi yàlla sunu borom tabaraka wa taala dafa wax ci alquran ne inna allaha ya'murukum an tu'addul amaanaati ila ahliha sunu borom tabaaraka wa taala dafa diggal nit ñi ñuy matal kóllëre te itam buñ leen wóoloo ñu fexe ba mata ko ndax xam ngeen ne fi ne ni raar gee tax bu nit amee sax doom ju xaw a jub nit ñi dañ koy yéemee ndax tey ji gis ku jub koo xam ne léppam dafa mat dañ naan ah waaye diw sàngam de moom doomam ji de ku jub la moom kooku koy moom lu mu la wax moom du dañ tey ji da dégg rek fi ne ni dëkk boo dem danañ ci sepp ñett wala ñeent ñoo xam dañ naan ñii moom ñooy ñoo xam ne luñ la wax du dañ te loolu àdduna si tukki la xanaa kay dañ naa war noo xam ne ñaar ñii mooy ñoo xam ne luñ la wax day nga xam ne euh, bu jikko yàqoo ñaar lañ ci war lim wala ñett waaye dëkk bi yëpp ñeneen ñett nit mooy si ñoo xam ne luñ la wax du dañ loolu àdduna si tukki la te loolu ku ko seetlu di ko xam te dafa mel ne dañoo xamut ne loolu ñuy wax al amaana euh, ak jokk ak bokk yowmal xiyam dañuy ñëw taxaw ci pegg sirat kii taxaw gauche kii taxaw droite ñu fay def mooy dañuy seetlu rek ku romb nga xam ne mëtaloo woon seen àq rek ñu jàpp ci sa loxo nga wàcc te foofu moom sooy ku la euh, loo fa indi problème naa moytu ndax foofu moom laqatoo fa am ak ay di topp ci gannaaw nit ñeeg ngir bañ ko la xàmme ndax moos bu ñu jàppee ci sa loxo moom ca ngay xam ne pare nga te al amaana muy kóolare képp koo xam ne mataloo kóolare gi ngay seqal nit ñi yëgal ne yowmal xiyaam kóolare dina taxaw ci pegg bi booy jàll rek mu ne ay eh, yàlla kee am am naa moom problème kee moom faaw mu ñëw ñu rek la waaye jokk ak bokk yit nga xam ne léegi raar na boo waxee ñaa ah jot amatul jot moom mës sa am mag ñi ñoo ñu gënoon ñàkk jot fuuf ndax amoon nañu tey mat sëkk waaye teew dañ ko daan dox te daan nañ ci nàmpatal ndax da gis nit ne doom ji takkal sereet mu takk sereet ñu ànd dem barab sàngam bu demee daanaka dafa def dara lu toog di waxtaan ak wan ko ne ko ñii say bokk nañ ak nàngam waaye léegi loolu daanaka amatul bu buñ koy def itam dañuy rek duñu ànd ak kenn te gis ngeen ne loolu ñu bàyyi xel ndax yow mal xeem mën nañoo indil ay problème waaye alayhi salaam dina ak euh, wóoram dina feeñ ci gàddaay gi ndax xam ngeen ne euh, ba ba ko yàlla waxee na ko damaa bëgg nga gàddaay comme fii mënoo fee dund te suuf si dafa yaatu te maa moom lépp damaa bëgg nag nga dem ma Madina ba mu ñëwee ndeysaan euh, ba ko ba mu ñëwee ci bakar wax ko ne ko ah sunu borom de wax na ne damaa war a gàddaay mu ne ko mbaa man la la wax nga àndal mu ne waaw yow lay àndal ba ko yéefri déggee rek ci lañ dem seen assemblée dajee ndax ne lii moom bu amee rek mooy suñu échec total. ci lañ daal di yëg waaye la ma soxla rek mooy alayhi salaatu wasalaam euh, ba mu ba noppi dafa woo Ali ndax wax naa léegi ne yéeféer yi liñ koy bañ bañ bañ ak lu liñ ko doon xeex xeex lu ñu soxla bu ñëwee moom lañ koy wax mu fajal leen ko bu ñu amee lu ñuy dénkaane ci moom la ñuy ñëw waaye ci la daal di woo Ali ndeysaan daal di ne ko damaa bëgg nga fanaan ci sama lal bi boo ñëwee nga sàngoo sama mbàjj mi ndax ñii man la ñuy fexeel te man damaa war a génn ci guddi gi. ci la Aliou ñëw daal tëdd ci lal bi mu ne ko nag boo xëyee nga delloo ndénkaan yi waaw mot euh, ndénkaan bii diwa ko moom bii diwa ko moom bii diwa ko moom ci kooko ndax bu doon ñeen ñi dañaa ah kon man la ñuy xeex danañ xam ne maa leen gën a nàngam lépp la yóbbaal te du mujj fenn ndax boo demee am nga ñu la waaye dafa wax an lii ko kaay nga tëdd ci sama lal bi boo ñëwee boo xëyee nga jéem maa delloo ndénkaan yi bii diwa ko moom bii diwa ko moom morceau bu xonq bi diwa ko moom bu ñuul ba diwa ko moom ndax ma mënutoon a jàng mënta bind da ko bii nekk ci morceau bu xonq bi diwoo ko moom bu weex bi diwoo ko moom bu ñuul bi diwoo ko moom ba fee jeex te nga xam ne foofu la wóor yam koo xam ne mu ngi la bañ di la xeex bu mënoo nekk ci dëkk bi nga war a génn taxul sax nga ne ah comme man lay jéem a nangam léegi kay bàyyil ma fayantoo moom waaye delloo ndinkaan yi ba mat kon loolu alayhi salaatu wasalaam rek moo ko man kon moo tax yàlla ne suñu borom tabaraka wa taala nañu yore ci alayhi salaatu wasalaam ndax ah, ba nga xamee ni xad xaraja wa baqee hunaaka salaatu ayam ti mooy alayhi salaatu wasalaam ba mu gàddaayee Ali def na fa ñetti fan ngir delloo ndénkaane kon xam nañ ndénkaane bëri woon na moo tax saa sax moo gën ñëpp jikko faa nabiyina fii xalqin wa fii xuluqin walam yu daanoohu fii almin wa fii karamin suñ tubaa nee na alayhi salaatu salaam moo gën ñëpp jikko moo gën a ñëpp bind waxumaal dara waaye xam-xam ak tedd kenn jegewu ko fa walam yu daanoohu fii almin wa fii karamin ci la waxaat ne inna min abdillahi faaqa kulla man abdaahu aw yubdihi xaaliqu zaman mooy euh, alayhi salaatu wasalaam doomi Abdullahi jaak Amina képp ku sunu borom mos a feeñal ci jamono moo la gën te mooy gëni képp ku mos a feeñ moo la gën ñim jamono ante moo leen gën kuy feeñ itam moo la gën kon suñu tuwàlla innam ne abdillahi faata kulla man abdaahu aw yubbihi xaaliqu zaman waaye xam ngeen ne it ak wóoram dina feeñ ci euh, kooku nga xam ne ab jaamam la woon ndax Xadija bi mu ko dencee daf ko mayoon Zayd ibn Xaarisa Zayd ibn moom rek ci saxaaba yi la alxuraan tudd nga xam ne loolu ak ak ak tedd nga la ci moom ndax loolu alxuraan kum tudd mbir la waaye Zayd na Haarisa xista ba fa mu tàmbalee mooy dafa àndoon ak woyu juróom euh, di ziyaara ji ay bokkam ndax loolu araab dañ ko fonkoon loolu alayhi salaam ba woyu juróom mu jigéen di wàcc liggéey booba dafa àndoon ak moom ndeysaan seeti ay ndiyaayam ba ñu dëppee ba abwaa ci la ci la woyu juróom daal di tawat foofa faatu maata bi abwaa fii daf nun saa xajin Ahmadou Cissé tabaarakallaahu waaye Zayd ibn Haarisa ba mu ànd ak wuyu juróom ñu seeti ay nijaayam ci lañ dem ba jamono rek ñu réeroo ndekete yoo dafa am ku sàcc Zeyd ibn Haarisa dem jaay ko ci ba bañ ci marché ba fekk booba euh, am na ku ñuy wax euh, am na ku ñuy wax Hakim ibn Hizam mu jëndal ko bàjjanam muy Khadija bintu Xuwaylid léegi nag ba Khadija nekkee ak moom ba jëmmi jamono alayhi salaatu salaam euh, denc ko ñu dem ba mu yàgg ci la jël Zeyd na Haarisa jox ko alayhi salaatu salaam mu nekka moom nekk ak nekk bu rafet lool comme ni ñu ko waxee saa sax ñu ay jikko rafetee benn bis ñuy nekk ca Kaaba ga di Umra nit ñëpp ñëw ci la Zayd ibn ay bokkam gis ko bañ demee daal ne wax way jël ah, yow de sa doom ji nga doon seet at yëpp gis nañ ko ca Kaaba ga boo demee màkk boo ko laajtee dinañ la wax fu mu nekk. ci lañ takk seen bagage ndeysaan daal di ñëw ba ñu ñëw nag mu ngi am way jël mu ngi àndoon ak benn frère am li ñu doon programme mooy suñ demee daal di waxtaan ak ki ko yor. daal di koy jox alal nga xam ne jot lay doon am lii te jox ma sama doom bañ ñëwee alayhi salaatu salaam dalal leen ñu nekkee fa nekk nu rafet mu daal ñu wax ko ne ko ah ñun kat suñu doom ji moo ñu tax a jóg ndax wax dëgg yàlla nangam ak nangam la demee dafa àndoon ak ñu sàcc ko jaay ko boobu léegi ñu ngi seet nangam ak nangam léegi nag sa alayhi fekk booba Zayd mu ngi toog di dégg mu ne leen jot gi ngeen wax de jàpp ma ne sax ne dina ko jàpp léegi dañ koy woo mu ñëw su ñëwee ñu tàndoor ne ko ndax da ngaa bëgg a dem wala ndax da ngaa bëgg a toog lu mu ci wax jël ngeen ngeen may jox xaalis nañ dem ci loolu ah ñu bëgg loolu ndax wax dëgg yàlla wooy jur bu ñëw nag gis doomam jàpp nañ ne dara mënta am lul ñu ànd ak doom ja dem ani saa saa mu woo Zayd ibn Haarisa daal di ñëw ba ñëwee mu ne ko dégg nga li say wooy jur wax léegi nag yaay xool su fekkee dem moo la gënal bismillah naa la jox yóbbal nga dem su fekkee da bëgg a nag su ko defee bismillah nañ toog ah ci la Zayd ibn Haarisa ndeysaan fekk mu ngi bëggoon alayhi salaatu salaam ne ko ah, man de xam nga ne duma tànn kenn ci yow ndax mat nga ma bàyyi mat nga ma rakki bàyyi mat nga ma yaay fii laay toog ci yow alayhi salaatu salaam ne ay bokkam nag comme moom nee maa ko gënal man nag wax dëgg yàlla. Ah, maa ana wa in ixtaarani fa wallahi maa ana bi la di axtaaru ala man ixtaarani ku ma tànn nag wax dëgg yàlla du ma ñàkk ngor nan la tànn ma la comme tànn na ma nag bàyyi leen ko fii ndeysaan ci la wooy wax ko ne ko ah a taxtaaru ala yow léegi nekk jaam moo gën nga nekk goro dem ci say wooy na ko déedéet kii daf maa mat lépp daf maa xam ne loolu day war lañu waxoon léegi rek seen ilam naa si tastaabat la jàpp jaam xolub Zayd la jàpp jaam mooy da koo tàmmal miinal ko jëfee moom jëf yu rafet ba nga xam ne zéro xam ne ne mën nga dem faneen ba gis fa lu mel nii kon moo tax lu rafet moom moom la waa ji waxoon rek lu rafet moom nanga ci mat la ñëpp bul xool ko yelloo ak ko yelloo nanga ci mat la ñëpp te ci la alayhi salaatu salaam daal di wax ñépp ne leen ishhadu ayyuhal jamaa anna zayd ibni ci la waxee wax jurée ji daal ne zayd mii de maa ngi leen di seeroo lee tey jii ne sama doom la dama koy donn daf may donn ndax boo ma xaraamagul a taban nii mooy ca xis sa ba beneen lam ca waxoon maakaan Muhammad Aba Ahad mi di jàllabam alayhi salaam ci la génn ba ci penc mi ne Zayd mii maa ngi leen di xamal ñëpp ne tey jii sama doom la bu dee dama koy dond su ma faatoo daf may dond ndax tey def naa ko jom ngir jëf ju màgg ji ma defal ndax booba ndeysaan yëg na lu rëy ndax koo xam ne sa wajur dafa teew nga nangoo bàyyi say wajur jël koo ko xam nga ne jëf ju leen waaye Zayd tam ci la noonu la demee ba alayhi salaam euh, jox ko soxna see ah xisa bu yàgg la xam ngeen ne euh, alayhi salaatu salaam loolu mu wane foofu mooy masuuliya mooy responsabilité te ñun ñëpp ay ma masuuluñ ne ndax alayhi salaatu wax na ci hadis ba ne euh, kullukum raa'in wa kullukum masuulun an ra'iyyatihi mooy ñëpp ay responsable lañ imaam jàkk ji ñu ko dénk mu di ko jiite ay responsable lañ ku fa xamul diine boo ëllëgee yow man xiyaam moom la ko yàlla di laaj moo tax imaam à chaque fois dafa war a fexe di ñaax dëkk bi mu nekk ñuy fexe di jàng ku ca xamut nañ laaj muy su ko xamut na laa ci ji ndax njàng moom lenn képp la mooy dégg ak takk maanaam tekkiwul ne njàng mooy nga dem toog sa daara ja ñu jox la alio naan déer li fekk yaa ngi mën a dégg di mën a takk ndax saxaaba yaa ngi am nekk alayhi salaam amul woon jot dem ci daara ja nañ daan def mooy alayhi salaam di wax ñuy jàpp loolu dong mooy njàng mooy dégg ak takk tey ji utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi mooy foo toll war ngaa mën a war ngaa mën a yokk sa xam-xam ndax mooy dégg rek ak takk ci la alayhi salaam wax ne jigéen responsable na ci kër jëkkëram lépp lu mu fa gis muy yàqu te mu war koo mën a defar te defaru ko na yëg ne yow ma xam moom lañ ko defal waaye boo meeg sa borom ne ah da ngay dof doful sam alaar boo génnee ci àll ma ñaana nga nàngam te loolu ani sa sam nee na mooy yow moo xam ngeen jugoo wala ngeen mer lépp loo xam ne gis nga ne war nga koo mën a defar war koo defar ndax ah, jigéen mooy jëggan jigéen pire mooy jëggan ndax la so ah, waa ji waxoon soxna jaara jigéen ñi soxla lañu yaa di soxna maam jaara ub nga lam bi doomi soxna jigéen ñi soxla lañu waaye euh, kenn ku ne xam nga sa bos ndax soxla la wala soxna la waaw kenn ku ne xam na sa bos soxla la wala soxna la xam naa mataal moom soxna la yor tabaarakallaahu su ko defee alayhi salaatu salaam ci la doon wax ne euh, wuyu jur itam mas'uul la mooy moo yor responsabilité b doomam doomam waxuñ rek ngay yefal ndax ñu bari fi ne nii lañ séq ak seen doom mooy yefal rek yefal ñuy def fas yaa xar mooy fexe ba muy dund di naan ba muy dund képp di naan ñu bari bari na si ñoo xam tey ñoo lor seen i doom waxumal dara waaye loraale seen bopp waaye loraale it ña war na yaakaar seen doom ndax su fekkee koo xam ne da fexe ba muy dund di naan dimbala cang-cang rek ni ko suñu wéy di doon waxee woon euh, loolu alayhi salaatu salaam nee na yowmal xiyam di nga sonn ndax saa su yàlla jàppee ci loo xam ne ko kaay dem safar naa dama fa bàyyi sama waajur ndax li ma dal moo ma ko teg bu ma ci yoon lii du ma dal waaye xam ngeen bokk na ci àq yam ko war a defal mooy da koy yar bokk na ci àq ya fexe ba mu rafetal jikko waaye tey ji euh, bu la yàlla joxee waajur woo xam ne day tux wala mi naan sàngara moos xam nga ne di la yónni ngay dem ci bitig ba di jëndi póon ak ñëw kooku mënu la koy tere moo tax euh, balaa ngaa am doom war ngaa fexe ba say ko baax ba lépp loo xam ne bëggoo mu mel ko yow bu ko mel ndax euh, yar gi gën a rëy mooy yar bi nga xam ne xale bi da ciy teg bëtam tey j su fekkee sa waajur day wax lu dëgg bu diw ñëwee mu ne ah, diw de bu ñëwee ne ko nekkuma fi la waa xale ba defoon wooy jëm na ka ah, bu diw ñëwee ne nekkuma fi mu mu biir nee nekku fi sama baay mu ngi ci biir nee nekku fi <laughs> mu génn nag ah yow waxuma loolu nekkuma fi kay doo waxoon nekkuma fi rek waaye sama baay ngi ci biir waaye nekku fi nga xam ne loolu moom la jàngal xale yi su fekkee da yor jikko jooju noo mën a def sa doom da koy jël tey ji aleyhi salaatu la wax waaye ba tey bokk na ci euh, ak yi nga xam ne wuy jur yoroon na ko doomam mooy yaa ko war a wutal soxna su fekkee du xale jamono jii nag ndax bëri na si ñoo xam ne tey jii balañ laa wax damaa bëgg soxna fekk na ñu wax ba mu dee waaw fekk na sax tabaarakallaahu mën na ñenn ñi dañuy luyee ay waajur dem takk ci soxna ñëw na ci yàlla kon aleyhi salaatu wasalaam loolu la wax ne waajur wu ne war nga koo yoreel sa doom waaye itam xam ngeen ne bokk na si jukka aleyhi salaatu wasalaam kon ni ñu ko waxee léegi mooy xulqu tasaamox mooy tabe wala boog baxale wala jéggale wala yu demee noonu ndax xam ngeen aleyhi salaatu wasalaam ay jikkoom yëpp moo ci man ñëpp te tamit ku mënoon a al afu ni ko alxuraan waxee xudil afwa waamur bil urfi wa arid anil jaahilina mooy dee jéggale tey jëlale te itam bu leen nit xamut ba tax mu jalgate sa xàq bu la ko jàppee loolu te loolu incha allah dana feeñ waaye itam xam ngeen ne alayhi salaatu wasalaam idfa' billatii hiya ahsanu gi ko sunu borom tabaaraka wa taala santoon nekkoon na ci te loolu day feeñ ci kesta bi amoon ci Euh, ba nga xamee nekk na màkka ndeysaan yëf yi métti lool alayhi salaatu salaam doon gën a aar muy Khadija ak euh, Abu Talib faatu ñu faatu ndox ci benn at ci fan yu jege sax yéefiri nag daal di xirtal jëm ci kawam fekk ba fi Abu nekk léeg-léeg daan nañ ñëw ne ko sa doom ji li muy wax suñu yàlla yi waxal ak moom ndax dañ dal ci kawam dem sax ba di ko proposé naan ko mën nañoo wut ku bëri doole te rafet. man li alayhi salaatu salaam man lépp te waxuñu dëgg ñëw jox la ko nga jox ñu ko ñu jëflante ak moom ndax kii li ñu tooñee ëpp na Abu daan bañ ba mu faatoo nag ñu jóg dal ci kawam lor demoon na ba toll ci bu génn naan ndeysaan ku bëggoon lu taaru la rafet bu daan génn day sol lu jekk xañoo parfum peñe si giñ ba xarit naan ah wa wa Aïcha naan ko waaye xanaa gémoo ci ci mu ne waaw parce que ñoom am nañu àq ci man ci bu ñu may xool gis lu rafet ci man te nga xam ne ñëpp noonu lañ ci mel balaa ngaa génn ci penc mi war ngaa fexe ba euh, yor comportement boo xam ne bu leen nit ñi gisee naw la waaye koo xam ne sa tubaarkallaahu mu ngi noonu léegi nag ci la sa lancé ñu fi métti ba bu génn naan jëm ci marché bi dañ daan jël suuf di ko xëp ñeen ñi del suuf di ko xëpp ci bopp bi nga xam ne demoon nañ ba ñàkkal ko fu la ñàkk ko fayda bu ñëwaan ci kër gi mu ngi fay fekk ndeysaan Fatima ndax booba euh, takkagul beneen soxna bu ñëwee Fatima ndeysaan di jooy naan ko ah papa lii métti na de koo xam ne jotewoo moom dara génn rek mu lay xëpp ndeysaan mu naan ko ah muy muñ ndeysaan di dalal am xelam naan ko muñal sa baay yàlla dina ko aar te booba mi ngi am booba 13 ans rek la Fatima am moom rek la nekkal ndeysaan te booba Xadija faatu na te amagul yeneen lu ne ñu ko daan def léegi nag ba benn bis ndeysaan ci la fas yéene nag dem ne ku am kër ndey rek am nga kër bàyyi daal ne kon day jéem a dem Taïf comme foofu la wooy jëm na xam ngeen nag Salma Euh, Salma mooy woy juru woy juram moom maanaam mooy maanaam mu jigéen Salma moomu nag Hachim euh, mu ngi ko takkee mu ngi ko dencee woon ci Taïf ndax dafa demoon xam ngeen ne nit ki ñaare fu ay gorom nekk rek fa la dëkk mu dem fa ba mu demee denc ko fa xeex xew fa mu dem ca ba mu demee ca la faatu léegi nag ba mu nee ba xaw a màgg euh, Mutalib frère lam loon frère Hachim loon ci la dem jëli Abdul Mutalib ndax boobu fekkul sax ñun mu tudd Abdul Mutalib mu tuddoon Shayba ba mu ñëwee jël ko ñëw waa Màkka xamuñu tur wa ci lañ ko tuddee Abdul Mutalib mooy jaamu Mutalib bi waaye Mutalib nekkul waajuram waaye frère baayam loon léegi nag alayhi salaam ne kon bàyyi la ma dem sama kër ndey ba mu demee ndeket yoo fa mu jëm fi mu bàyyee ko moo ko tane fi mu bàyyee ko li muy métti métti moo tane fa mu jëm ndax ba mu demee euh, mu ngi yegg ci euh, foofu ca Taïf ndeysaan ba mu demee rek Euh, waxtaan ak kilifa daal ne ah man kat wax dëgg yàlla fa ma nekk dama faa nekk yëfi métti lool aw ma fa jàmm aw ma fa salaam léegi nag damaa bëggoon ngeen fat ma te ndeysaan diggante bu sore la ci ndax wax na 84 kilomètres non 85 kilomètres mën na ko diggante Taïf ak Makka aleyhi salaam doxee ko tànk ndax boobu amul doole te boobu itam amul waruwaay ndax kenn jubluwu ko ci la dem foofu ba mu demee ndeysaan ba muy dem xam ngeen ne li ko yëkkati woon duutoon bëgg daraja duutoon bëgg siiw duutoon bëgg ak pal waaye duutoon bëgg ak bànneex waaye lenn képp la woon mooy li naa sa mina zulumaati ila nuur fexe ba nit ñi génn ci lëndëm jëm ci leer waaye xam ngeen ne ba mu demee la ko fekk ca Taayif moo gën a métti lool ndax ba mu ñëwee juróom-ñeenti kuréel la dajak ca Taayif boo leen jëmi leen ci yàlla ne ah man kat yàlla daf maa yónni ma nekk ab yonentam ma ñëw nag leen ko wax si ndax fa ma nekk nanguñ maa dalal ndeysaan wax a ba deel ñu ne ko nag yow de da nga ñoo yab sa kër baay ñoo ñàkk fulla moo tax nga am fit naan da leen di wax ne yow ab yonent nga waaye moo xam nga ne boo dalee woon si ñun ba tey waxatuñ ko daal di koy boolee euh, dof yaag ñu tànk yeeg ñu seen xel neexut ñu di ko di ko sànni xeer ndeysaan muy génn taayif ndeysaan boobu fekk euh, xam ngeen ne bokk na ci li taxoon waa taayif mënuñoo nangoo dem ndax ñoom dañu leen jàmm xërëm te nit ñi dañ daan def bu nooree ñu ñëw fa yi seen économie di ci dox ñu xam ne bu ñu nangulee alayhi salaam li leen di woon nit ñi dootu leen fekki ci la ñu daal di euh, commencé nag ndeysaan euh, di ko booleeg dof yeeg xaj yeeg ñi seen xel neexul ñuy ko sànni doj ba tànk yee di naaj alayhi salaam te la ko taxoon a jóg lenn képp la mooy génn nit ñi ci lëndëm yóbbu leen ci leer génne leen ci crise yóbbu leen ci développement waaye itam ba tey xam ngeen ne li Taïf def noonu bëri na si jamono lool mooy alayhi salaam dafa ñëw ne leen man bu ma sañoon. lii ngeen nekk da ngeen koy bàyyi gaaral leen yëfi lislaam yëpp naxante beeg nangam waaye loolu ni ma xewee mooy bëri na ñoo xam ne soo waxee ci diine ba laal seen i intérêt dañ naan ah waa ji daal day sóob rek lii muy wax kenn waxuloo ko moo ko waxal boppam te loolu bëri na fu ne ne taayif ba am sarsam laalee seen intérêt ne leen damaa bëgg ngeen bàyyi jaamu xelam te ñu xam ne xelam jii si la seen économie di jaaree dañ koo dañ koo ngàntal ne ko yow bu ñu la toppee suñu réew mi day suux te tey ji wax ak commerçant nangam nangam kat boo ko defee da fekk mu laal intérêt daa ah yow daal sa waay da ngay wax rek te loolu bari na waaye nit ñi léegi ni ñu bëgg a dundee dina ji mooy nañ ànd ak moom di dox rek waaye duñ ko déggal ci yu bëri waaye bi tey xam ngeen ne ah, alayhi salaatu wasalaam ba mu leen waxee waa Taïf ne leen yàlla am yónni am ñett ñoo xam ne dañ koo tontu kenn ki ne ko waaw ah waaye yàlla de mooy néew li nag yow yónnul kenn ku dul yow xam ne sa ndey dee na sa bàyyi dee laataa ngay judd ña laa yoroon kas ñëw dee nañ yow mii rek la yàlla am ku mën a yónni yow day toirkal keneen ki ne ko yow de du ma wax ak yow ndax su fekkee am yonent nga li ma bëgg a wax xam nga ko su dul am yonent nga xam na ngay sosal yàlla du jar may wax ak yow waaye ma tey xam ngeen ne taxul mu bàyyi mu génn ndeysaan ànd ak Zayd ibn Haarisa ba mu génnee euh, dégg ngeen ci li ma mën a waxee léegi ne ku mën a jéggale la te mën a jëlale nuñ def gannaaw bi nga xam ne taxawal na ñaari sàppe jox nit ay doj ñu di ko sànni di ko xeer nga xam ne dem na ba mu bu te tànkam ci doj la koy teg ngir xeer yu bari waaye ba mu génnee alayhi salaatu wa salaam ah, ah, ah, malaaka ma ne ko suñu borom de nee na ñaari doj yu rëy yi tiim dëkk bi ñu ngi ci sa commandement soo bëggee ñu daanu seen dëkk bu doon ñun dañu wax nag nañ ñëpp dee bu doon kenn si ñun moom daa ah nañ dee de comme dañuy jaay bon naa waaye déedéet lu mu leen wax daf leen a jéggal ba noppi jéggalul leen allahumma agfir li qawmi fa innahum laa ya'lamuun ñàkk maa xam moo tax ñu def ma lii waaye buñ ma xamoon duñ ma ko def te xam ngeen ne kon alayhi salaatu moo gën ñëpp jikko ndax saaga nañ ko fa dàqee nañ ko fa lu ne def nañ ko fa waaye bu mu génnee moom boppam la doon tal naan yàlla man de su dee méréwu ma li ma dal faaliwu ma ko xanaa kay nga meram rek laay bañ te nag ñii bu leen def dara ndax buñ baaxut it mën nañoo jur luy baax waaye tabaarakallaa dégg ngeen euh, na ko yéen daal noo waxoon ñii de awma ci yaakaar ci ñoom awma ñoom ya awma yaakaar ci liñ nar a jur kon nag na ñëpp dee waaye alayhi salaatu salaam moo gën ñëpp te gën a tedd ñëpp di ko ne yàlla baal leen ndax man baal naa leen tabaarakallaa kon alayhi salaatu ku mën a jégal la ndax lu mel nii ko waa Taïf def waxuma dara waaye bennam dong bu ñu ko defoon tey jii ku la ko def rek boo sañoon mu dee tey jii képp koo xam ne laa xañ sa intérêt boo sañoon mu dee képp koo xam dafa yàq si dara boo sañoon mu dee te loolu euh, bëri na si ñun waaye itam xam ngeen ne alayhi sa wasalaam ba muy dëpp ci yoon tam yàlla xéewal na ko xewal gu rëy ci ndax booba digal na ko ne ko euh, suba deel julli ñaar rakka ngoon deel julli ñaar rakka ba mu julli ñaar rakka Euh, ci la ko am ay kuréel yoo xam ne ay jinn lañ nga xam ne seen ca bopp ba ña fa nekk mooy tur yi mooy salit ak chasir ak masir ak xaasir ak xasa ak masa ak arxam ak adresse nga xam ne ay turi jinn lañ ñoo ñoo jiite ay kuréel yoo xam ne la xewoon mooy euh, dañoo toog comme jinne yi euh, dañ daan def di yéeg ci asamaan di gëstu ji ay xibaar la ñuy waxataanee ca asamaan si ñu koy dégg ñëw di ko jox seen gisaanekat yi ñu tem ba jëmmi jamono mënatuñ koo am ci lañ nag daal di euh, génn dañuy xooli xew moo tax gisaanekat yi bu njëkk xëy na daan nañ am ndax ba euh, gisaanekat ba di waxaan saa sam naan ko di nga doon yonentu te danañ la génne comme génn nuyi booba ñoom daan nañ xam dara waaye léegi gisaanekat boo dem lu mu la wax xamal ni du dëgg ndax mënatuñoo am xibaar leen dañuy tànnale boo ñëwee dañ boo ñëwee dañ naan noo tudd nga ne diw xam nga xamu ko mu ne la foo bàyyi nga ne diw luy si soxla ngay di xam donc yow yaa ko wax lépp ba noppi nag mu commencé di jël ci la nga waxoon di dox ci sam xel moo tax gisaanekat yi léegi ñoo gis dañoo dañoo gëlëm tabaarakallaahu waaye alayhi salaatu salaam bu mu génnee ci la jinne ñëw ndeysaan fekk mu doon jàng saaru taaha ci jullik suba ñu nekk fa ndeysaan yëf yi yëngal leen loo moo tax diine ji ku mu rek yëgal na sa xol moo dee ci la ñu daal di daw ndeysaan dem seen nit ñi ci la alxuraan wax na wa id sarafna ilayka nafra minal jinni yastami'una alqur'ana falamma hadaruhu xooolu en surtout balam maa ko doya walaw yi laa xaw ñu mumtin bañ demee nag ñoom jinne bañ bàyyi ko ci ànd saasam dem si nit ña automatiquement dañoo soppee ko ay waaraatekat bañ demee lu ñu wax yaa xaw sa inna sami'na kitaaban unzila min ba'di Muusa musaddiqan limaa bayna yadayhi ñu ne leen lu muy def yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim dégg nañu téere boo xam ne wàcce nañ ko gannaaw Moussa muy tawreet ndax xam ngeen ne injil ñëw na fi gannaaw bi mais tawreet ak alquran la yàlla dogal ñu indi ay atte di tëral yi ci des yëpp téere yëpp euh, ñu ngi doon wax ci tawxid nu ñuy wéetale yàlla ak yu demee noonu waaye téere yoo xam ne day indi ay atteeg ay loa ak yu demee noonu alquran la ak tawreet moo tax ñu ne gannaaw tawreet gisaat nañ beneen téere boo xam ne andi na dëgg te day jubal nit ñi bu ñu sañoon nag jàpp ta yaa xaw ma naa ajibu daa yàlla kaay leen ñu dem jébbalu ci alayhi salaam gis ngeen ko nit ñi bañ nañu waa Taïf jinne yi ne dañuy jébbalu si moo tax euh, buñ si yeboon yem ci diina ji ndax jinne yañ jëm ñoom lañ jël ña ko jëlee ca diina ji moo tax ku yebu boo amee soxla xaaral ñaan sa soxla suñu borom tabaaraka wa taala mu fajal la ko te bañ a seete ay gisaane karak e ca des waaye gis ngeen alayhi salaatu wasalaam ba tey ni ko am Ahmadou Bamba waxee ci nit ñi waree ne jikko yi Euh, alayhi salaatu bu ñu ko royee dafa war a feeñ ci suñu jikko te loolu la ci njëkk mooy day feeñ ci suñu xol na xam ngeen ne euh, da ngay gis koo xam ne day wax naan ah man de suñ tubaay sama sëriñ war a nangam te fekk suñ la mu woote muy ak murit dafa jafe murit dëgg yombul la yombay nga wax ne man ab murit laa doo am murit murit dëgg yombul la yombay nga wax ne man ab murit laa doo am murit ndax suñ tubaa lam jàngale mooy nit ki boo toppee ci alayhi salaam te roy ko tamit dëgg ci sa xol day defaru ndax xol ci cër mu ngi mel ni suñu président yi niñ mel ak seen ministre xam nga bu dee président normal sax ni mu mel ni ministre mooy su fekkee jaaru fi yoon ministre yi ko gàggante waaye suñu président yi ministre yi sañu leen a gàggante ñoom ñooy buur di booma ko bumi moo tax mu ne xol ni mu demee ak yeneen cër yi dafa mel ni président bu nekk ak ay ministre am saa su ne ñuy def mën moo tax boo fexee ba xol bi baax cër yëpp dañuy baax alqalbu kalmaliki fil a'daa'i mahma tamil yamil maa tidaay waaye itam suñu tuwaa nee na ku bëgg a defar say cër da ngay fexe ba sa xol set wecc sa xol set wecc ko nga fexe ba moytu añaan moytu njisal moytu rëy moytu soxor ba tey tamit fexe ba sa cër nga laabal ko ci jikko yu caay-caay jikko yu suufe yi takkaayoo ko wala jéem koo sóob ci jikko yu baax yi waaye ba tey nee na sa xol bu baaxee dafa war a feeñ ci say loxo say loxo bul ci bind mukk suñu tuwaa moo ko wax nee na bul bind mukk ab message naan ah, di di message comme célibataire ni ñuy def di bind message di envoyé naan nangam nangam comme bari yooyu ñuy faral di ko Sëñ Tuubaa nee na falaa taxuta awta musa falaa taxuta mooy bul bind message u amour bind message amour naan nangam nangam comme ni ko ñëpp xamee man nag dama ko xawut a xam moo tax tabarakallahu mu ne falaa taxuta awta musa maa yakun muharraman fi charin fi charin diini haadinal makin tabarakallahu muharraman fi charin haadinal makin waaye Sëñ Tuubaa Euh, sa loxo fexeel ba bul ko teg mukk ci kaw jigéen joo xam ne lewu la ba de tey xam nga ne suñu li mu wax nii ci bind message bëri na ci téléphone yoo xam ne boo ko yoroon maanaam tabaarakallaahu boo si jaaree sa say bët mën naa def neneen ndax am na ci image yoo xam ne te loolu suñu tubaab loolu doy war la ndax bu ñu xamoon ne ni ngay bindee ci sa loxo ñëpp jàkkaarloo ci ni mu garaawee nga bind ci sa téléphone te kenn gisu ko noonu la garaawee ndax comme li ngay def lépp day feeñaat ëllëg. jar naa moytu ndax gi ngeen suñ tubaab mos naa fekk ab donga mu toog di bindantu mu ne ko looy def mu ne ko ah man kat damay bind mu ne ko xanaa da nga koo jàngee bind mu ne ko waaw mu ne ko dangay ngay def soo waratee bind nga bind ne alkadibu xaraam wal xiiba xaraam wan na mot xaraam ilax boo demee ba bindati del bind ne fenn xaraam na jëw xaraam na rambaaj xaraam na xam nga loolu kuy bindantu ci suuf booy bind loolu boo ca bàyyee sam xel dina tax nga moytu moo tax suñ tubaab dafa bëgg lépp lu nit ki def mu doon lu koy jëriñee waaye ba tey nee na su fekkee xol yi baax na dafa war a feeñ ci tànk yi bul dox mukk jëm ci loo xam ne araam na tànk yi li tax yàlla defal ñu ko mooy ñuy dox di dem ci jàkka yi di ci dox di yéwénal diggante ay nit di ci dox di jokk ak bokk ak di def saalihaat yi ba tey tamit su fekkee roy nañu alayhi salaatu salaam ba suñu xol baax dafa war a feeñ ci làmmañ yi ndax nee na làmmañ yi li tax ñu defal ñu ko mooy di sant yàlla ak bu la nit defalee lu baax nga wax ko ko ak yu demee noonu moo tax gis ngeen alayhi salaatu mas nay waxtaan ak Muaz ci hadiis bu gudd ba mujj Muaaz na ko ba ko ne na nga fexe ba téye saw làmmañ ndax ëllëg yowmal xiyaam mën na laa andil ay jafe-jafe lu ko wax wa inna la mu'aaxazuuna bimaa ah, li ñuy wax koy jàppee alayhi salaatu wasalaam ne ko sakarat ko ummu ko Muaaz nga sunu làmmañ yii bëri ñoo xam ne bu ñu duggee ëllëg fu leen neexul làmmañ yi ñoo leen ko teg ndax wa inna la mu'aaxazuuna mu ne ko wa hal yukabbu nnaasu ala wujuuhihim fi nnaari illaa hasaa'idu alsinatihim moo tax xam ngeen alayhi salaatu wasalaam wax na ne jaam dina wax ab baat te baat bu mu wax sax du ca bàyyi xel waaye baat ba mën na koo tax a dugg fu mu bëggul jaam dina wax ab baat te baat bu mu wax bàyyi ko xel waaye mën naa tax ëllëg yomal xeyam yàlla na ko kaay dugg na ngir baat boobu nga waxoon tabaarakallaahu mbokk yi ñu ngi leen di ziyaare waat bu baax a baax di wéyal ci fi ñu tolloon rek tabaarakallaahu ci li a Cheikh Ahmad Bamba di wax ci buñ royee alayhi salaatu wassalaam ba am ci jikko yi dafa war a feeñ ci sunuy cër ñun moom la doon wax ne euh, sëñ Tuubaa dégg ngeen li wax ci nëxëju gannaaw bi mu ci leer la ci jikko yi daal di ne euh, képp koo xam ne dangaa roy alayhi salaatu wasalaam bokk na ci li nga war a mel mooy dangay ngay yërëm da ngay am yërmande di yërëm ñi la féetee suuf di wekk ñi la féetee mag ñi la mat way jur nga jox leen cër way jur waaye itam ku maaseeg yow nga jox ko cër bi nga jox sa bopp li nga bëggal sa bopp nga bëggal ko bëggal ko sa morom wuuteeg li wolof di wax naan sama bopp ma la gënal du bañ naa la islaam da koo bañ mooy wajaalu mislika ka nafsika sawa li wajhi xaaliqin alal arshi stawa suñu tubaa nee na loolu mooy li ma bëggal sama bopp laa la bëggal waaye du sama bopp ma la gënal du bañ naa la waaw ndax euh, lii day feeñ ci léegi da ngay dégg nit sax naan diw sama xarit la te fekk la mu bëggal boppam xaaju ko ko bëggal ci la borom bi wax ne li ëpp tey moo de xarit yu zahir te biir ga nag ku dekk def am njàmbur ndax nit ñi léegi dañoo bëgg ñëpp nekk seen i xarit loolu mënta nekk ñëpp mënta mënuñoo nekk seen xarit kon nag buñ koy woote ñenn ñi dong ñooy mën nekk sa xarit ñu ci des nekk la neen li ëpp tey moo de xarit yu zahir te biir ga nag ku nekk def am njàmbur waaye suñu tuwaa nee na ku rey alayhi salaatu wasalaam kenn du sàkku ci yow dara te amu ko wala yarum min ka la yaa daan arimu illa faaltahu bi daaka tukramu léeg-léeg nit sàkku ci yow loo man nga ne ko ah boo ko fekkoon xam wala diw sàngam ne moo fi génne yaa xale derub jàmbur te suñu tubaab nee nag ku roy alayhi salaatu salaam doo ko def waaye ku roy alayhi salaatu salaam doo wax kenn waxoo dëgg comme ni muy amee ci suñu politiciens yi nga xam ne ci kanam nit ñi ngay toog di weddi nit wala nga di ko ŋàññi na kenn kuy roy alayhi salaatu salaam waroo def loolu ndax Euh, taxaw ci barab ŋàññ nit tey jii ñu ne waaw balaa yàgg benn at ñaari at nga taxawaat fa nga taxawoon di ko tagg loolu waa ji ne kéemaan la madxun wa dammun fii makaanin waaxidin min waaxidin li waaxidin ajabaan te loolu xam ngeen ne sunu gars yi ci lañ nekk moo tax euh, bokk na ci natt yi ñu yàlla teg mooy sunu politiciens yi nga xam ne gëmuñ dara seen bopp dong lañ fi nekkal suñu tubaab ne na kenn kure alayhi salaatu wasalaam wërta wax ne di waxu dëgg aw xulta xayral xaqi aw axtaata waaye dégg ngeen suñ tubaab yi mu doon wax léegi tam itam ki alayhi salaatu salaam ni mu war a nekkee ci yow mooy laa taqrabu zina wala al muqaddamaat li wajhi baaqin xawruhu muazamaat suñ tubaab nee na kuy roy alayhi salaatu wasalaam te muy dëgg ci yow doo njaalo yu jiitu njaalo it doo ko def suñ tubaab nee na xam ngeen ne ci la suñ Musaa ko ndax loolu léegi dafa bari bari na lool ba tasaaroo ba yegg ci dëkk yi nga xam ne yàlla daf cee def orma ndax ni ma leen ko waxee woon am na barab yu yàlla wormaal am na dëkk yu yàlla wormaal am na jëmm yu yàlla wormaal am na bis yu yàlla wormaal nit ñi nag léegi xàmmeetuñ ko lu ne ñeme nañ koo def fu ne ñeme nañ ko faa defee te xam ngeen ne lu mel ni Touba Fall gii ni ci boroom jotee koo xam di ko bàyyi xel ndax euh, gannaaw boo xam ne a Omar Fall woy juróom jox na ko ndigal ci damaa bëgg nga seeti Cheikh Ahmad Bamba ndax xam naa ne ci moom ngay defaroo mu ne ko waaw mu ne ko boo noppee nag na nga ñëw ma jox la ndigal du ma la tere waaye nanga ma tàggu ba ma jox la ndigal Cheikh Omar Fall dem ba jëmmi jamono mu ñëw ne wuy juróom la nga ma waxoon de ci laa ñëw mooy seeti Cheikh Ahmad Bamba mu ne ko waaw mu ne ko kon léegi jox naa la ndigal mën ngaa dem loolu tombeek 1902 euh, ndax Cheikh Omar ba mu fi bàyyeekoo mi ngi fekk Serigne Touba xoomaak loolu te Sëriñ Tuubaa mu ngi demoon xomaak bokk 1903 laay wax ndax Sëriñ Tuubaa ba gannaaw bi nga xam ne 1895 bañ ko woowee Ndar mu bàyyi koo fa euh, ñóbbu ko Gabon mu dellu si 1902 1903 ci la dem xomaak ak Cheikh Omar Fall mu ngi fekk Sëriñ Tuubaa xomaak kon loolu 1903 lay mën a nekk ci la demee xomaak xam ngeen ne moo Sénégal ak gànnaar ca xomaak soree nañ lool ak Cheikh Omar Fall bàyyeekoo fa ndax moom mu bàyyeekoon kër ñeen gannaaw bi nga xam ne mu ngi gën a jamono 1880 fële ca Colobane Gossas ñu bàyyi ko fa woo juróom tuxu Misra bàyyi ko fa woo juróom tuxu gént kay ñu bàyyi ko fa tuxu Kërñeen Cheikh Omar Fall ci la ko woo juróom joxe ndigal mu dem fekk Serigne Touba ca Xomaak ba mu demee am fa diir Cheikh Ahmad Bamba euh, yebal ko mu ñibbisi wa ba mu ñibbisee ci la nekk ci ron woy juróom gannaaw bi nga xam ne lim xam lépp woy juróom moo ko xamal ci alquran ak xam-xam ndax woy juróom aalim la woon di xaddam Euh, di xaddamal di xamle mbooti xam-xam ndax waaliduhu muallimul qur'ani alfaarisul muqaddamu tijaani Cheikh Omar Fall way jërëm ba mu ñëwaatee ci ronam suñu Omar Fall toog ba jëmmi jamono mu tombeek 1912 euh, ndax ba muy demaat Serigne Touba mu ngi ko fekk njaareem te Serigne Touba 1903 ba mu demee gànnaar wàccoon xomaak mi ngi fa bàyyeekoo 1907 1907 la ñëw dem Thièyeen Jolof 1907 ba 1912 mu ñëw njaareem Cheikh Omar Fall mi ngi ko fekk njaareem Serigne Touba jox ko. ndigal gannaaw bi nga xam ne ñëw na mu laaj ko say waajur nam demeek axayin waalidaak ni ko alayhi salaatu salaam waxoon ko ndax xam ngeen ne euh, allaka waalidaak ak axayin waalidaak yooyu yëpp am na alayhi salaatu salaam moo ko waxoon benn saxaaba léegi suñu tubaab ci la laaj Cheikh Omar Fall ne ko axayin waalidaak ndax say waajur nag dund mu ne ko waaw mu ne ko demal ca ñoom boo demee jox naa ndigal te te nga xam ne sama ngërëm ci yow mii muy ngërëmam ci yow dellul ci réew mi ak na ko borom bayit waxee ci la Cheikh Omar dellu siwaat ci waajuram nekk fi di ko lëggéeyal ci ndigalal Serigne Touba lëggéeyal ko ñetti at mu tombeeg 1915 mu demaat Jurbel fekk Serigne Touba demee nag Serigne Touba tëbbu leer ya fa shaahahu fa maddada diraaya fa aada lil ahali bil anaaya léegi Serigne Touba jox ko ndigal mu ñëw Chambre Fall wax nañ la euh, fekkul nag mu bàyyi woon ziyaare ndax li muy nekk ci loolu way juróom di lëggéeyal Cheikh am Bamba yëpp mu ngi doon ziyaara ji Serigne Touba jamono ji nekk Chambre Fall dafa nañu wax ne saa su weer xëyaan mu xëy kon euh, yoonu ziar yi moom na mel ni xorondoom te gàmm moom de ko defee fasay doom Cheikh Fall ci la ñibbisi di def saa su gàmm jotee mii dem ci gàmm Sëriñ Tuubaa ba Sëriñ Tuubaa jox ko ndigal 1915 1916 la njëkk gàmm 1915 la ko jox ndigal ca Jurbel ne ko Omar fi ngay bàyyi ko sori na mbooloo mi ngay àndal bari na te Yonent bi saa sam ñëpp ko bokk léegi nag damaa bëgg ngay gàmmoo fi nga nekk fii Wayakhin la njëkk a gàmm di sant kay si kat di bernde Jookaa ci la commencé di gàmm ca Jookaa 1916 ba jëmmi jamono mu euh, tuxu boowee dafa gàmm ba ñu waa génd këy ay mbokkam ya fa nekk ñoo sàkku ci moom mu dellu si waa génd këy ndax wax naa ne ba mu gënee jamono gosaas mi ngi ñëw misra bàyyi ko fa ñëw génd këy kon mos nañ faa dëkk ci la dem dëkki boowee waa génd këy sàkkuwaat mu ñëwaat ci ñoom ci la demaat génd këy euh, gannaaw bi nga xamee ni euh, Cheikh Ahmadou Bamba wàcc na liggéey mu dem yesu ci Cheikh Mouhamadou Moustapha ci mille neuf cent mille neuf cent vingt xam nga ne 1927 la Sëriñ Tuubaa euh, wàcc bu liggéey 27 20 mu yeesu ci Cheikh Mamadou Moustapha ci la ko laaj nag ndigal ne ko damaa bëggoon bu ma amoon ndigal sañ sama toolee Cheikh Mamadou Moustapha ne ko dégg naa ko loolu ba 1938 kon nga xam ne ba mu ko sàkkoo ak bi muy am ndigal sos dëkk bi am na 10 ans muy toog di déglu ndigal moo tax dëkk bi euh, ni mu ci jotee daf cee sonn lool te liggéey ba mu jar ko moo dëkk bi Cheikh Mamadou Moustapha ba mu koy jox ndigal mu sañ ko ne ko am nga ndigal dinaa la jox ay tegtal demal te ñëw jë maa demal te dellu si te jël say takkal am nga ndigal danaa la jox ay takkal demal te dellu si te jël say takkal ci la amee ndigal sañ ci dëkk bii di Touba Fall moom Cheikh Omar Fall ànd ceeg ay mbokkam gannaaw bi nga xamee ni gàmm na ca 1930 38 euh, wala 1938 ci la am ndig ci la ànd ak ay bokkam ñëw sañ si dëkk bii Cheikh Mouhamadou Moussa da ko wax nag ne ko dëkk la boo xam ne ku fa nekk di jaam yàlla dina mata ñee waaye ku fa nekk def ak mooy yàlla dina mat a te xam ngeen ne ni mooy yàlla yi tasaaroo ak Cheikh Amar ni mu sonnee ci dëkkam ni ma ko waxee léegi bàyyi ko na fii dox ba xoomaak ca gànnaar fekk Sëriñ Tuubaa ñëw doxaat ba Jurbel fekk Sëriñ Tuubaa ba ba mu wàccee mu ànd ak Cheikh Mamadou Moustapha 10 ans muy sàkku ndigal ngir am dëkk kon nag dëkkam bii bu ko amee ñëpp ko ko war a sàmmal kenn mooy na ba nit ñi xàmmeetuñ dëkk bu ñu wormaal bu yàlla wormaal xàmmeetuñ jëmm ji yàlla normal te xam ngeen ne euh, gaa yu baax yi nekk fi ñëpp ñu ngi teew man awma benn sikk ci ne Cheikh Omar Fall mu ngi si jotaay bi alaay Serigne Fall mu ngi si jotaay bi njaboot yëpp a ngi si jotaay ndax alai sar sa moo wax ne inna amalakum tu'radu ala aqaribikum wa ashairakum fa in kaana xayran istabsharu wa in kaana xayra dalik qaalu kon amuñ benn sikk na ci ne yu baax yi ñu ngi dund ba léegi te loolu koo xam ni nga ko xam tey suba am na ci ku baax ku jaxasoo a ñoom koo xam nekk na ma ci loo xam ne awma ci benn sikk waaye xam nga ne ah léegi ne koo xam ne naa ko di nga fexe ba moytu njaaloo te njaaloo lool nit ñi na ci dëkk yi ñi koy def nag xam nañ seen bopp ñi koy def xam nañ seen nañ ko moytu suñ Touba sëñ Moussa Ka dafa wax ne jigéen ju xool bëtam ku dul borom këram lu mu mën a def buur yàlla dootu ko gërëm sàkkantuma di laale mbaa ngay laale jigéen ni sëñ Moussa wax ne jigéen bu dee waaj di wëree luy faaru te su ñëwee fa sëriñam du taaru xanaa làmbooy sagar di soomuy muudu di las-las yi sërëm bu peeru tooru ngir naqaral ko te bu génnee faaru soli sërëm waaj ba ne suqi taaru yowmal xeyam malaaka dañ koy futti yóbbu ko angaar ba sagar muy xotti mu ne dundung sa kë sagar wu nekk def jaan yaa def jiit ñuy matt yaa di saamaan mu dëkke taati neen yu ànd ak tooge junne bi xat ci feetu jiit lay tooge képp koo xam ne dangaa njaalo moo xam ngay góor wala ngay jigéen njaalo même bu doon benn ñaar yoon nga def ko Musaa nee na yoomal xam te moom du waxan ndax Sëriñ Tuubaa ba muy wàcc lëg dane woon Musaa Ka laa leen boole nay wax ak yéen kon xam nga si Musaa Ka doo xam nee na képp ku njaalo yoomal xiyam boo ñëwee fa suñu borom da lay yóbbu ci ruq boo xam ne séri ya nga daan sol ngay lañ lay jox ngay xot xotti bu nekk nag saamaan bu rëy saamaan way nangoor woo xam ne boo ko gisoon tey di daw moom lay doon ngay toog seen kaw ñu lay mat te ak xeeti mbugal yoo xam ne wax na ko ci kon nag yooyu nañ ko moy mooy bu baax a baax baax a baax te a waggar dëkk yu sell yi nga xam ngeen Touba Fall gii euh, Cheikh Abdou Samad Baye Abdou waxoon na ko maa in jaari képp koo xam ne da nga dëkk nag te xam ne mënoo ba teqal ko mooy yàlla booyee boo def ni ñenn ndax Cheikh Omar Fall ba mu sañcee dëkk bi lu mat fanweeri kër lañ fi samp ci taxawaay waaye ñenn ñi bañ nee ba xam ne mënuñoo dëkk ak moom dañoo daw génn képp koo xam ne faa nekk te xam ne sart yi ñu fiy dëkkee wala sart yi ñu fi war a dundee mënoo ko booyee boo rek nga daal di laxas ndax dëkk bi suñ tubaa nee na moo ko téye boppam te Cheikh Omar Fall lëggéey na loo xam ne jar na ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah bismillah